أشهد أن محمدا رسول على الفلاح bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulilahi nacbuduhu wa nastaxfiruhu wa nastahdih wa nacuusu billahi min sururi anfusina wa sayiaati acmalina man yahdi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wasalaatu wasalaamu ala nabiyi lhuda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ixsaanin ila yawmi din amma baad ibadallah ittaqullaha wajtahidu ala ala ittibaai awamirihi wajtinaabi nawaahi wa huwa alilahu alwahid alladi yastahiqu an yucbad wa laqad amarakum bi amrin azimin sadara min dalika alisra alxaariqa mima yadullu ala alahamiya ala wa huwa alsalawatu alxams faqad sadara wujubuha min alsamawati alula yaqulu subhana wannajmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma qawa wa ma yantiqu an ilhawa in huwa illa waxyun yuha allamahu shadidul quwa zu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaaba qawsayn للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام يقول سبحان يقول صلى الله هو ولذلك للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام فهو أولا asalaatu maadu aqaamaha faqad aqaama diin wa huwa alfardu lwahid allati yajibu an yuadda maa kulli durufi walxaalaat inda alxarbi هنا فيجب على أدائها على كيفيتها وفي وفي أول وقتها عن ابن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاتها وكيفيتها اللهم اهدنا إلى سواء سبيلك واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه mbokk yi ni ñu koy defee rek ci bokk di nafaraat ak di bokk di ko ñu seet ñu seetlu ne fa wax xutba yi jàll ñu ngi doon waxtaane li nga xam ne moo tax suñu borom binduñu ak bi mu bindee li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu def ko ak li nga xam ne moom la ñu jox ci ay xéewal ak kàttan ak man ak ak sécurité bañ ngir ñu mën a taxawe li nga xam ne moom la bëgg ñu taxawe ko ñu xamoon itam ne suñ borom moom du fay jëf ci kaw waxtu wa waxtu wa waxtu ya nga ca def fay jëf ci kaw itam àggu jëf ji waaye mu ngi fayee jëf ci jë na nga jëfe jëf ji rek ni lay faye moo tax moo mu doon koo xam ne ku màndu la ndax bu fekkoon da ko aj ci waxtu ay tappale mën na caa am fekkoon ne da ko aj ci aj ci jeexu jëf ji jëf ji itam mën naa jeex te ay tappale am ci waaye na moom da koo aj ci kaw sa ni nga jëfe jëf ji rek noonu la lay fayee kon mu doon loo xam ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la waaye nag mu mel ni li nga xam ne jëf yi ngi ñu jëfloo nag da cee am yoo xam ne yu yu yu yu rëy ci moom yu mu bàyyi xel te bëgg itam doomu aadama yi bàyyi ko xel bokk na ca yooyee nag muy julli te julli xam nañ ne ñi ngi ci waxtoom ndax ñi ngi ci weer wi nga xam ne ci la ko suñ borom farataaloon ci jullit ñi julli nag dafa doon loo xam ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la li tax itam mu am solo moo di ne moom suñ borom moo julli mooy jenn farata ji nga xam ne bi ko suñ borom di farataal ci doomu aadama yi yónniwut jibril mu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yónniwut jibril mu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko rek suñ borom dafa farataal nangam ci yow bëgg itam farataal ko itam ci nga ko ci jullit yi waaye da ko woo moom ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam mu ñëw mu jox ko farata yi mu jox ko julli kon loolu muy won di nu li nga xam ne moom moo la wàccuwaay bi nga xam ne moom la julli am waaye nag li ci gën a yéeme moo di ne bi mu ko woowee mu ñëw ci moom mu di ñu nettali na yëf yi jëfe demee itam taxul mu tudd baatub julli dafa wax rek fa awxaa ila abdihi ma awxaa mu doon loo xam ne kon loola dalay lay daal di xiirtal yi ne loolee mu ko loolee mu nga xam ne moom la ko moom la ko moom la ko wax yu mooy lan nga war ko bàyyi xel ngir ngir xam ne la ko jaral mu woo ko ñëw ba ci moom mu wàccee ko ci moom mu wax ko ci mu wax ko kon farataal ko ci moom mu war koo jottali jullit ñi te ba mu koy dettali jaarut ci tur bi nga xam ne mooy baatu julli fa awxaa ila abdihi ma awxaa rek la wax mu doon kon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la lu rëy rëy wan nag ci ne julli lu mat a bàyyi xel la lu rëy la bi ci njëkk moo dina ji julli mooy fondement bi nga xam ne wala mooy keno bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mooy keno bu téye képp koo xam ne téye nga ko téye nga diine képp koo xam ne bàyyi nga ko itam bàyyi nga diine ñaareel bàyyi nga ci li nga xam ne moo ni woon itam julli ne lu am solo la moo dina julli mooy jenn farata ji nga xam ne du wàcc doomu aadama bu ko xasee war dootu ko wàcc ba mukk moo xam situation bu mu mën a nekk julli da koy war waaye nag loolu noonu li nga xamee noonu mu nekkee doon loo xam ne du wàcc doomu aadama nag noonu itam la ci suñu borom amee yërmande ba kenn ku nekk nang ko mane rek ak sa tolluwaay ba nga toll noonu nga koy defee kon mu doon loo xam ne dañuy woon yërmande suñu borom ci ci jaam yi julli itam li ñu waraan ne am solo la moo dina yonent bi sa alayhi wa sallam dañoo xamal ne jëf ji suñu borom di njëkk xool ëllëg ci jëf yi doomu adama yi defal suñu borom mooy julli bu fekkee ne gis na julli ga tegu fa mu war a tegu mel ne mu war a mel mu bàyyi yeneen yeneen jëf yi du ko xool waaye nag bu fekkee ne jëf ji julliwut rafetul tam yeneen yeneen ya ca des day daal di xam ne munta munta mat ni mu war a mate bokk na ci li nga xam ne moo ni woon itam di julli am solo la moo dina mooy lenn li nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xamal ne mooy loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bàyyi bàyyil ko xel yi itam sunu njaboot ba tax mu ne boo xasee am njaboot ba mu am fukki at danga ko ba am juróom-ñaari at da nga ko war a di di di jàngal julli di ko xamal nan la ñuy jullee di ànd ak moom ci jàkka ja di de di di di boo dee julli sa biir kër tam nga woo ko ngeen bokk taxaw julli loola kon mu ñuy won ne julli lu am solo la waaye lam ca tegaat moo di ne bu xasee am juróom-ñaari at ci ngay defanteek moom loolu waaye bu xasee am fukki at nag moom day day war a àgg ci nga war a mën a jëflanteeg moom ci bu taxawut julli mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la doonul loo xam ne nag dañ koy wax nii waaye dafa doon loo xam ne jullit su jotee ndigal loo xam ne dafa jóge ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te ndigal li jóge mooy li jóge ci suñu borom ndax yonante bi doonul loo xam ne doonul kenn koo xam ne day wax loo xam ne da wax ci gis-gisu boppam wala mu wax ko ci xam-xam boppam wala mu waxee ko ci sañ-sañu boppam waaye li muy wax lépp ci lu jóge ci suñu borom la kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la ci njaboot bi nañ taxawu njaboot gi ci bu baax a baax ci di leen xam man sart yi nga xam ne mooy sart lislaam yi te di leen ci yar di leen ko xamal ne xam ne responsabilité boo xam ne bu ëllëgee suñ borom dañu ko laaj kon ñu góorgóor lu baax a baax ci njaboot gi te bàyyi leen xel ci yar bi bàyyi leen xel ci jàngal leen lislaam bàyyi leen xel ci yar leen ci lislaam bàyyi leen xel ci won leen lan mooy lislaam beneen bi ci dëgwaat sam ci li ñuy wan ne julli lu am solo la moo di ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne julli day day day bokk na ci li nga xam ne day far ay bàkkaar mu misaalee ñu ko ci ne mi ngi mel ni rek ko amoon ak dex ci sa buntu kër bis bu set nga sangu ca juróomi yoon ndax danga jàppati na sa yaram benn salte dana ci nekkati ñu ne ko loolu day bunta nekkati ndax ku sangu juróomi yoon juróomi yoon ci bis bi jàpp nañ ne maanaam salte wala moo dootu mën a nekk sa yaram mu ne nag loolu nag mi ngi mel ni comme julli boo ko dee taxawee itam day mel ni bis da ci bis bi da nga ci da nga ci sangu juróomi yoon bu ko defee nag benn bàkkaar dootu des ci yow mu doon kon lu mat a bàyyi xel ba tey beneen bi ci teguwaat ci li nga xam ne moo nuy wan ne julli lu am solo la moo di ne yonent bi sallallahu alayhi ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Mas'ud da ko mas a laaj ne ko jëf yi ñuy jëfal suñu borom moom mi mat yàlla nañu ko mat mot mata mot matalal ba mu mat sëkk ba lépp loo xam ne li ñu ko defal dana ko dana ko dana dana da mel nu kawe nu kawe suñ jot dana mel noo xam ne na ko suñu borom bëggee loolu suñ borom man na ko yàlla ñu ko defal ñu ngi lu suñ borom nag di jégglu doomi aadama yëpp di ñaan suñu borom mu wàcce jàmm ak xéewal te musul nu ci baraay ak ndog yi yi nga xam ne moom moom moo koy bu ko wàccee kenn mënu ca dara ku ndax moom ndax moom ma ko moom ma ko wàcce rek moo ci man dara kon moom moom may di ko wàccee nag yàlla nañu ci yërmandeem xool na ci bëtub yërmandeem ba bañ ba musul nu ca loolee sàmm nu ca ba dara duñ ca